asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla julli ci sayduna Muhammad sangu-sang yi sant Sëriñ Tuubaa Mbàkke mi tax nu tal ko ñaanal Seex Muhammadul Muntaxaa ci màggal gi nu jóge mu yàgg lool Mbàkke te wér te yàgg koo woote ñëw nag te rakkam ju tedd ja jàmbaari lislaam docteur jàkka yi borom jàkka yeeg jumaa yi kooku mooy kan bu ñu nee borom jàkka yeeg jumaa yi rek ñu ni Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou borom ngot borom jàppandal boroom xabaan boroom njurul borom ndoka boroom lagan ak xel koom ak ndoka ak xabaan liggéey ak jaamu yàlla rek lay woon nit muy ngóobum xel koom ngóobum xel koom nag buñ ko waxee jëwriñ ju mag ji ah kenn du ko fàtte kooku mooy kan mooy darmanko bi bi nga xam ni bi muy góob kenn góobul fa mu mu nekkoon di faju ngóob mi rek ko tax a ñëw daawit bi mu nekkee ci feebar ngóob mee ko tax a dem xel koom kooku mooy kan mooy Cheikh Amar dara man ko bi jëwriñ sëriñ Cheikh mu sëñ Saaliw yàgga doon jëwriñ yaay jëwriñ li yow la ko sa lépp sa la la ko sëñ Cheikh teg mu ànd ko ak gor yu baax yi mu ko daan àndal waaye du ñu fàtte jàmbaar ji kenn dul fàtte sëriñ Saaliw njurul moom Cheikh Abdoulaye Lahat jàmbaar ji bu ñu nee xel koom sama xel dana dem ci moom de kenn du ko fàtte fàttali ko nag ah défense suuf Serigne Touba ki nga xam ne ci yoon wala juddoo màgg ci waaye boo ko gisee sa xemmem murit kooku mooy kan mooy sëñ Moustapha Abdoul karam ñu ko ñaan yàlla guddal fanam te may ko wér ak njaboot gi ak bokk yi ak xarit yi ak soppe yi ak wëllër yi Cheikh nam ko daa defee rek la ko defee nam ko daa wootee rek la ko wootee Cheikh Amar foo ko seen muy dem bu laajte ci Serigne Saliou la ne. bu ca doon génnul sax Serigne Saliou fekk fa ne fa mu nekk li ko Serigne Saliou jox feebar mënu koo jeexal ngóob mënu koo jeexal dara mënu koo jeexal Serigne Saliou woo tibb teg ki loxoom Cheikh ne mu ngi soññewaat bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ku ko yaakaar kuy soppeem kuy wëllalanteeg moom te mu lebaloon la fay si ko ci Serigne Saliou nee na bu la lebalul ñëwal lebal si ko ci Serigne Saliou Serigne Saliou dana ko dimbali ba mu fay la kon ngóob maa nañ ko daa defee ci xel koom seex mi ngi soññi ñëpp dégluwul kenn xoolul kenn seetul lenn sëriñ seex mu sëñ Saaliw rek la yaakaar bi fi sëriñ bi jógee leget kenn woyu ko ci genn kappaar gudul tànki sëriñ seex mu sëñ Saaliw waaye ñaanal la Cheikh Amar mu yàgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Saaliw waaye ñaanal la sëriñ seex mu sëñ Saaliw yàlla fi yàgg Mbakke téwér